taayub taaye ja taaye bu njëkk bi sunna la ab jotaayam ba day sunna la wa zaidu ak aji dolliku ala qadri salaami ci kem sëlmal ba mu nel julloo si jotaay ba athani ba aji ñaareel bu ñu nee jotaayu ñaareel dañ ciy jublu jotaay ba nga nar a sëlmale nde julli léeg-léeg mu am ñetti taay waaye nag ba nga nar a sëlmale rek lañ jublu ci jotaayu ñaareel booba nag danaa toll woon ci di wax danaa toll woon ci di wax naa taay ja nga nara a sëlmale sunna la ab jataayam sunna la waaye nag julli ci yonante bi itam sunna la ab jataayam ba tey sunna la diir ba ngay waxee asalaamaaleykum nag moom ndegam asalaamaaleykum ji farata la ab jataayam ba tey farata lay doon wa raddul muqtadi ak delloo aj roy ja xalaa imaam yi ci ilimaanam asalaama salmal anaam bu amee ku lay jiite nga wax asalaamaaleykum ndànk delloo ko ko gannaaw bu mu salmalee yow itam gannaaw ba nga waxee asalaamaaleykum bi nekk sa nga waxaat benn ci suuf delloo ko sa ilimaan boobu ah, loolu sunna la wa kasaalika naka noonu raddu foo ak delloom xalaaman ci ka nga xam ne xalaa yasaarihi nekk na ci càmmooñam in kaana dem nekk na xalaa yasaarihi ci càmmooñam ahadun kenn bu fekkee am na ku la féete càmmooñ nga delloo ko sëlmal wax ndànk asalaamaaleykum sunna la donte kooku moo la jëkk sëlmal sax mbaa yaa ko njëkk sëlmal ndax moom day fay lu tee nga wax asalaamaaleykum ndànk jëmale ci moom su fekkee kenn féetu wala càmmoñ nag mbaa kooku amul ci sax lu matub ràkk kon doo delloo ci wetu càmmoñ dara wa sutratu ak satir lil imaam yi ñeel ilimaan wala basdi ak kenn in xashiya ndeem ragal nañu ay yamurra bu rombee ahadun kenn bayna ma ci diggante seen yaari loxo diggante seen yaari loxo mooy seen kanam rek dafa wax ne yow dong boo dee julli wala ngay jiite ak ragal ne bala ngaa sëlmal xëy na kenn romb fi sa kanam ndax foofu mënees na faa romb kon sunna la nga wut satir sàmp ko fi sa kanam satir nag moom lu mu gàtt gàtt na gudde ni ab xasab lu mu sew sew na di jëni na di jëni aw yet tam nekk lu set bañ am sobe te nekk lu dal bañ a di yëngutoo ko jaxas sam xel mu rafet lool mbaa mu ñaaw lool tam bañ jaxi jaxee sam xel Mm, kon sattir boobu tey sunna la waaye nag bu fekkee da ngay maam am na ku lay jiite kon ki lay jiite rek doy na la sattir wa amma fadailu salaati ndaal ngëneelu julli fukk la ngëneelu julli mooy yi nga xam ne boo ko sàmmee dana tax sa tuyaaba yokk bu baax a baax yooyu nag ci ni mu ko wàññee fukk la ëpp na ko waaye moom fukk la ci wàññi rafaul yadayni yëkkati yaari loxo ya xinda takbiratil ihraami fa kabaru armal allahu akbar bi nga njëkk wax ci julli nga xam ne moom ngay tàmbalee julli nga yëkkati say loxo bu mu say nopp mbaa say mbagg mbaa ci diggante bi yëkkati loxo yi loolu ngëneel la wa tatwilu qiraati subhi ak guddal njàngum suba wa duhri ak tisbaar wa taqsiru qiraatil xasri ak gàttal njàngum takkusaan wal maxribi ak timis wa tawassatul isha yi ak digg doomu gee maanaam daa wax nañoo sopp bu fekkee ji ngay julli suba ba tisbaar te mu yow dong mbaa nga ànd ñoo xam ñoom ñépp dañoo sawar ci julli gu yàgg xam nga ne amu ci kenn ku am ngànt mbaa ku ci am dara lu mu yàkkamti kon sopp nañ nga jàng ci saar yu guddi yi yu guddi mu fassal yi yu guddi mu fasal yi nag moo tàmbalee la tàmbalee xujuraat benn ci ba ci suuratu xabasa loolu lañ jàpp ne mooy mu fasal yu guddi su ko defee nag bu fekkee ne nag yow ci sa bopp danga amee ngànt mbaa ña nga àndal am na ci kenn ko amee ngànt mbaa xamoo ba xam seen mbir nu mu deme kon fee boo jàng rek saa yu gàtt yi bu dee takkusaan ak timis ba tey dañoo sopp nga jàng ci saa yu gàtt yi saa yu gàtt yi nag moom mooy benn ci li tàmbalee soo duha ba ci sooratu naas benn ci saar yooyu lañ lañ jàppee muy saaru gàtt boo ci jàng rek baax na sopp nga jàng ci saar yu digg doomu yi mu fassal nag mooy benn ci li tàmbalee xabasa ba ci sooratu duha la dala ci ca tàmbalee ba ci sooratu duha benn boo ci jàng rek bu dee gee loolu sopp nañ ko jàpp ne kon dafa digg doomu rek wa qawlu rabbana walakal hamdu ak wax rabbana walakal hamdu lil muqtadi ñeel aj roy wal faddi ak kenn maanaam bu fekkee ne daa jiite su ko ko waxee samihallahu liman hamida kon sopp nañ yow nga wax rabbana walakal hamdu mbaa nga boole allahumma muy allahumma rabbana walakal hamdu soo ko dee firi ne allahumma yow buur bi rabbana yow sunu boroom walaka ñeel na la alhamdu cant ga ba tey li mu wax ne wal fas ak kenn noonu la mel na yow dong boo dee julli gannaaw boo siggee ci rek ba wax sami allahu liman hamida dañuy sopp nga wax ci sa làmmiñ allahumma rabbana walakal hamdu door a sëgg nag dem sujooti xam ne kon boo dee julli yow dong yaar ngay wax dangay wax sami allahu liman hamida mu nekk sunna nga wax rabbana walakal hamdu muy nganeel soo dee jiite nag moom dangay wax rek sami allahu liman hamida dangay ngay jiite nag muy maamoom mooy wax rabbana walakal hamdu wa tasbihu ak sabbal fi rukkoo ci rukkoo wa sujood ak sujood maanaam boo dee rukkoo ak boo dee sujood sabbal nga ngay sabbal yàlla dañ koo sopp rek bu fekkee waxu woon dara itam du ko tee baax sopp na nag bu fekkee da ngay rukkoo nga wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi nga wax ko ñetti yoon yoo xam ne day teey moo boo ko waxee lu ko ëpp itam mu baax bu fekkee da ngay ñu sopp nga wax subhaana rabbiyal a'la nga xam ne loolu moom ak sabal la mooy tudd naa seelul sama borom bi gën a kawe su la soobee dolli ca allahumma ghfir lii yàlla yàlla nag mu jéggal bu la neexee dolli ca geneen ñaan ndax boo dee rukkoo moom da màggal yàlla kese waaye rukkoo dañuy sib ku fa ñaan waaye buy sujjoot nag moom foofu nga gën a jege yàlla nee nañ ci bi ngay sujjoot te foofa sopp nañ moom nga ñaan fa mooy nga faa ñaan loo ngay boole saabal gi ñaan gi dafa mel ne mooy bi dafa jël foofu lam fa jël dafa mel ne mooy wa taminul fazi ak wax aminu kenn wal mamoom yi ak mamoom mutlaqan ci njàng moom mën di doon maanaam bu dee yow dong yaay julli wala boog da ànd kenn mu lay jiite waaw ñaar ñi kum ci mën doon rek sopp nañ bu waxee wala zaalin mu wax amin moo wax maanaam moo xam ci yelu la moo xam ci biril la loolu jublu ci mutalaxan ji su ko defee nag moom bu dee ci euh, yoonu maal dañuy sopp amin ji nga wax ko ci suuf rek ko koy mën di wax rek na ko wax ci suuf te bañ ko yëkkati wa taminul imaami ak waxub aminuk ilimaan fi sirri ci yelu faq dong maanaam bu dee ci yoonu maalik kii jiite bu dee yelu kese nga xam ne kenn dégg am njàngam bu waxee wala daalin danañ sopp mu wax amin waaye bu dee biral moom dañu bëgg mu bàyyi ña muy jiite rek wax amin te moom mu bañ ko wax man naa am nag ngay dégg ci ay kilifa ay borom xam-xam ñu jiite ba noppi bañ waxee wala daalin ñu wax amin waaye loolu day seen yoon waaye bu dee yoonu maali daal moom boo dee jiite tey biral doo wax amin te itam ñu fàttalee ne képp kuy wax amin rek dañoo sopp nga wax ko ci suuf waaye sopp ñu yëkkati ko ci kaw benn yoon bu dee ci yoonu maalik bu dee ci des nag moom dañ ko yëkkati ci kaw yow dong boo dee julli boo dee biral da ko wax boo dee yàlla da ko wax waaye lépp da nga koy wax ci suuf hmm. ba tey bu sa ilimaan dee biral ba nga dégg mu wax wala daalin ñu sopp nga wax amin waaye lépp da nga wax ko ci suuf wal xunóot ak xunóot xunóot sopp nañ ko mu bokk ci ngëneelu julli waaye moom nag julli suba rek a ko am xëy na mu leeral ko ci kanam xoomul xunoot nag mooy mooy baat yi nga koy defee xoomul xunoot mooy lii nga wax ni allahumma yow buur bi innaa naka nun nastainuka dananu sàkku sa ndimbal wa nastaxfiruka te nuy sàkku sa njëggal wa nu'minu te nuy gëm bi ka ci yow wa natawakkalu te nuy wakkirlu xale ka ci yow booy topp nag net li bi gën a wóor say boo teg ci wanax naaw soo waxee rek wanu munu bi ko wana tawakkalu ka say boo teg ci wanax naaw jële daal di jël li ci diggante bi danaa ko firi nag ngir nga xam ko waaye net li bi gën a daal bu dee ci lu amut loolu kon wanax naaw te nuy toroxlu laka jëm si ci yow wanax laaw te nuy summiku ci jëpp diine judul sa joj te nuy summiku mooy te nuy ku bàyyi jëpp diine judul sa joj wanax laaw booy booy firilee ci biir na nga ne wa nus nii te luy tagg xaleeka ci yow alxayra yiw wa kullahoo léppam nashkuruka danax nu la sant wala nak furuka te duñu weddi sa njekk baat yooyu noonu lay firi nga jàll nag ci wa natruku gannaaw boo waxee wanax naaw la ko wanax laaw nga teg ci wa natruku te nuy bàyyi man képp koo xam ne yàgg furuka dina la weddi sunu boroom noo ngi sàkku sa ndimbal di sàkku sa njëgal di la gëm te wakkirlu ci yow di torox lu jëm si ci yow di bàyyi jëpp diine ju bokk te ju lislaam di bàyyi itam képp ku la weddi duñ jotee ak moom dara boo ci boole waalee li ci biir nag mooy nga nekk kon tagg ci lépp lu baax ndax yow nga wépp tagg di la sant sa xéewal te duñu weddi sa njekk allahumma yow buur bi iyaaka yow rek naabudu la lañuy jaamu wala ka ngir yow rek nu salli la ñuy julli waa nasjudu te ñuy sujoot wa ilayka jëm ci yow rek it nasxan la nuy dox wa nax filu te ni gaaw narjoo danañu yaakaar raxmataka sa yërmande wa naxaafu te ni ragal xasaabaka sa mbugal aljidda kay aji tar inna xasaabaka naka sa mbugal mul xiqut aji yéeg la maanaam aji joti la biir kaafirina ci way weddi ñu yàlla suñu borom yow dong la ñuy jàmm yow rek la ñuy jullil ak laa sujootal yow rek la julli di la sujootal yow dong daal la ñuy jullil yow rek la ñuy yow rek la ñuy gaaw jëm ci sa mbir bëgg laa topp noo yaakaar sa yërmande di ragal sa mbugal gu metti googu nga xam ne ñu la weddi ñoom nga ko yeele wal xunóotu xunóot nag laa yekkoonu du nekk illaa fi subhi dara ci suba anaam xunóot moom sopp nañ ko waaye julli suba dong ko am bu dee ci yoonu Malik moo tax mu li ci xaas satan dong ah, suba dong moo ko am te it wa yekkoon dana nekk xabla rukkoo ci njëkk ko tey dañoo sopp nga def ko ca ak ñaareel ba gannaaw boo jàngee ma jàng ma jeex bala ngaa rukkoo foofu nga koy defee waxoo moom nag sirun ak yalu la maanaam daa bëgg wax ne ko yalu dañoo sopp itam ko ci suuf mu xunuut bëgguñu nga biral ko waxta la a gis wañu woon na ci sun wañu waaye waxule woon nag baati taaya yi léegi nag laa bëgg waxal baat taay nga xam ne booy taay xam ne baat yi ngay wax ngay wax ne at taxiyaatu mboolem baat yi tegtale nguur wala baat yi nga xam ne ñu tegtale nguur lillaahi aji yey la ñeel yàlla mooy yàllaa ko yeyoo azzakiyaatu mboolem jëf yu sell yi lillaahi aji yey la ñeel yàlla at tayibaatu mboolem baat yu tey yi as ak mboolem julli lillaahi aj yey la ñeel yàlla maanaam baat yi tegtal ak màgg ak nguur yàllaa ko yeyoo kenn du ko xëccoo moom bu fekkee day jëf ju sell yàlla rek yeyoo ñu defal ko ko mu fay ci tuyaaba ko ko defal bu dee baat yu teey ak julli lépp yàlla moo ko yeyoo baat yu teey ak jëf yu baax yi da ko yëkkati fay borom tuyaaba mhm. ilayhi yashadul kalimu tayibu wal xamalu saalihu yarfaahu noonu mu ñëwee jàmm aleyka yal na nekk ci yow ayyuhan nabiyu yow yonante bi des na jàng ba tey ayyuhan nabiyu def ko am sax te bi ji yaagi wa rahmatullah ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ak i jàmm yàlla xaleynaa yal na nekk ci moom wa ala ibaadillahi ak ci jaam yàlla ya asaalihina ñu di way baax hmm. yàlla moo sax yonante bi li tàmbalee at taxiyaatu ji ba ci asalawaatu lillah mu moo ko sax ngir mu nuyoo ko ko yàlla na moo ko fayee assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi malaaka yi ñoo ci teg nag assalaamu alayna nit yàlla na jàmm yàlla nekk ci nun te nekk ci mboolem jaamu yàlla yu baax yi muy assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin ashhadu dinaa seede ne annaka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharik amul jenn aji bokkaay la wañeel ko wa ashhadu te maa ngi seede ne anna muhammadan naka muhammad abduhu ab jaamam la wa rasuluhu te ab te ab loolu mooy taaye ji nga xam ne Omar bnul Xataab moo toogoon ci minbar ba jàngale ko ñu mokkale ko ci moom am na yeneen xeet net li taaye na yoo xam ne yu bàyyi ko ci sayyidatuna Aïcha la ko yàlla na ñoom waaye mooy ñu bàyyi ko ci Omar moom la fiqhu Maalik moom jël fa in sallamta ndeem salmal nga a haza ci gannaaw lii ajj sa aka mu doy la wa in chita ndeem soob na la xulta nga wax lii dolli ci maanaam bu dee taayu njëkk ji moom fii doo nga yem waaye bu dee taayu ja nga xam ne ca nga nar a salmali nag moom bu la neexee yem fii te du ko tee baax bu la neexee dolli ca lii nga dolli ca lii nag moo gën ngay wax ne wa ashhadu dina seere ne anna lazi naka la nga xam ne jaa adikki na bii ci moom muhammadul muhammad xaqun dëgg la wa anal jannat ak naka àjjana xàqoon dëgg la wa anal naara ak naka sawara xàqoon dëgg la wa anal siraat ak naka siraat xàqoon dëgg la wa anal saaxat ak naka bis penc euh, tiyatun aji dikk la laaray ba amul benn sikki sàkk fiihaa ci moom wa anal laaha ak naka yàlla yebbu xas dana dekkal man képp koo xam ne fil xubóori nekk na ci bàmmeel yi xam nga taay daa yemoon ci seere ne yàlla rek mooy buur boo xam ne jaamu ko day taxa a jariñu ñàkk koo jaamu day léegi na boo ci dolli li kon ngay dolli waat ah, nga dolli ca gannaaw boo weesoo yàlla nga seere ne Muhammad mooy jaam bi yàlla yónni xam ne ko topp topp nga yàlla léegi nag boo ci dolli lii moo ci dolli loo da dolli kon seere ne li yonent bi indi lépp dëgg la àjjana lu am la sawara lu am la siraat moom mi jéggi lu am la bis penc lu am la dee ak dekk itam lu wér la dolli ci allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dolli tedd nga ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammadin ak ñuy muhammad warham yàlla na nga dolli muhammad ak ñuy muhammad wa barik te yàlla nga dolli barke ala muhammadin ci muhammad wa muhammad ak ñuy muhammad mhm. wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ni nga terale wa rahim te ak ni nga yërëme woon wa barak te ak ni nga barkeele woon ala ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñoom ibrahim fil aalamiina ci mbindeef yi innaka naka yow xamidun ku ñu sant nga majidun aji tedd nga waaw loolu boo ci dollee julli nga ci yonante bi te julli ci yonante bi lu sunna la ci taay ju mujj ji te it nga defee ko julli gi ñuy wax asalaatu al ibrahimiyatu ba tey lu ñu sopp la noo jullee jonante bi rek mu baax waaye nag nga defe ko gii gii itam daa bari ay nettali waaw nettali bi mu joxe am na yeneen nettali yoo xam ne yëpp moom lañu waaye boo ci mokkal rek moom baax na allahuma yow buur bi sall yàlla na nga doolu tedd nga xalaa malaayikatika ci say malaaka wal muqarrabiina ak ñañu jegeñal sa malaaka yëpp yàlla na nga leen doolu teraanga rawante na ña nga ci gën a jegeñal sa bopp ni ki jibril ak mikaayil ak israfil ak hasrail waxalaa ambiyaika ak ci ñañu solo sax wal mursalin ak ñañ yónni ñamu solo mooy ñamu wax yu te joxu leen ndigalul jottali mursalin nag mooy ñamu wax yu ba noppi digal leen ñu jottali ñoom ñëpp yàlla yàlla na nga leen dolli teraanga waxalaa ahli taaxati ak ci ñooñ sag topp ajmaxiina mboole seen topp ñëpp rek yàlla nga leen dolli teraanga allahumma yow buur bi ixfir yàlla na nga jéggal li ñeel ma wali waali dayya ak ñeel saa yaari waajur soo ko defee wali waali diya nag maas daal gi ci suuf maas ko kon day doon ak ñeel samay waajur nga xam ne yemul ci say maam da ci duggaale lu yem ci sa yaari waajur rek wali aimmatina ak ñeel sunuy kilifa wali man ak ñeel képp koo xam ne sabaqanaa jiitu nanu bil imaani ci gëm maxfiratan njéggal xasman gu dog gu dog wala gu dogu danga ne suñu borom yàlla nag ma baal maag sama sunuy kilifa képp ku nu jiitu woon te gëm la rek boole nu baal noonu ñëpp rek njéggal gu dogu allahuma yow buur bi indi naka man asaluka danaa la ñaan min kulli xayrin ci wépp yow sa alaka woo ñaanoon na la min ci moom muhammadul muhammad nabiyu ko kadi sab yonante salla yàlla na dooli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama tem dooli ko woolu wa ahodu tamay muslu bi ko ci yow min kulli charrin ci wépp dooli ko woolu ñaan googu wax ne ni ci ñaan yi gën a ëmb lu yaatu ñaan yi gën a matale ci la bokk ndax da nga ne suñu borom maa ngi lay ñaan yëpp yi woo xam ne sa yonante Muhammad mas na la ko ñaan maa ngi la koy ñaan bu fekkee jombul ci man maa ngi ñaan nga musal ma ci yëpp ay woo xam ne sa yonante ñaan nga musal ko ca bu fekkee yell na ma ca maa ngi ñaan nga ca loolu nag lu yaatu yaatu la allahumma yow buur bi ixfir yàlla na xam ne xaddam naa jiital nañ ko ci ay moy wamaag la nga xam ne axar naa yeexe nañ ko ci topp wamaag la nga xam ne asrar na nëbb nañ ko ci moy wamaag la nga xam ne aalan naa feeñal nañ ko ci ay moy wamaag la nga xam ne aalan naa feeñal nañu ko ci ay moy wamaag la nga xam ne ante yow aalamu yaa gën a xam bisi ca loolee min naa ci noonu loolu tam jéggul gu yaatu la suñu borom yàlla nga nu baal lan jot a jiital ci bàkkaar gépp topp yàlla gunu yeexe ba waxtu wa jàll mbaaluñ na bu ci bàkkaar mbaaluñ ca feeñal ak la nga xam ne yaa ko xam sax te xamuñ ko te fekk noo ko def ci bàkkaar rabbana yow sunu borom aatina yàlla na nga nu jox fi dunya ci àdduna xasanatan yiw wa fil axirati yàlla na nga nu jox ci alaxira xasanatan yiw wa qinaa yàlla na nga nu fegal xadaabin naari mbugal sawara moom itam ñaan gu matale la gu ñu fonk la ci boo dee ñaan rabbana a jooju suñu borom defal nu yëpp yiw alaxira ah suñu borom defal nu yëpp yiw àdduna defal nu yëpp yiw alaxira te fegal nu ci te fegal nu bëggoon safara wa ahadu dana am muslu bi ka ci yow min fitnatil mahya ci fitnay dund wal mamaati ak fitnay faatu wa min fitnatil xabri ak ci fitnay bàmmeel wa min fitnatil masih ak ci fitnay masih ak dajjaali ka def fenaakoon suñu borom musal ma ci yëpp fitna joo xam ne dana dal nit. fii ci àdduna ji ci gën a rëy nag mooy fàtte yàlla am soxla woolu bokk te yàlla musal nu ci fitnay dee fitnay dee ji ci gën a rëy mooy toll ci faatu ba far ñàkk gëm-gëm amoon ñu rekki gëm-gëm musal nu ci fitnay bàmmeel wala su ko ñaanale almasihu dajjal dañu wax ne nit la koo xam ne day woote àjjana ak soora ci mujjug jamono lay feeñ amee ajjanaam joo xam ne ku ko gëm mu dugal la ci amee sawaraam woo xam ne ku ko weddi mu dugal la ca nga ne suñu borom may ma nag mu bañ koo fekki mbaa su ma ko fekkee itam nga musal ma ci fitnaam wa min xadaabin ak ci mbugalu safara wa suu il masir ak ñaaw mucc waaw yàlla musal ma ci mbugalu sawara musal ma ci mujj ñaaw boo foofu nag kon xam nga ne julli nga ci yonante bi ñaan nga ñaan gu yaatoo yaatu su boobaa nga door wax nag asalaamaaleykum loolu nag ci taay ju mujj rek layam taayu jëkk ja nga yem rek fa taayu daa yem moom ji nga rek lañ jublu ci taayu ju ci taayu ju mujj wa amma makruhaatu salaati ndaal yooyu sibi julli fa duxaaw mooy ñaan baxdal ihraami ci gannaaw armal maanaam day wax yi nga xam ne taamu nga ci julli soo ko moytoo ca moytu ko ñu bind la ci tuyaaba soo ko defee nag lu tax mu yàq julli waaye bañ ngaa def daal boo ko moytoo ngir xam ne gënut daal ñu bind la tuyaaba ca moytu ga Mm. bokk na ca nag ñaan fa duxaaw mooy ñaan baxlal ihraam ci gannaaw armal aw xabal qiraati ak njëkk jàng fatiha waaw maanaam gannaaw ba nga waxee allahu akbar diggantee ma ngay jàng fatiha sopp ñu nga wax fa genn ñaan dañoo bëgg rek boo waxee allahu akbar daal jàng fatiha wa ak ñaan fii asnail fatihati ci biir fatiha wa suurati ak ci biir saar wa jamono yi ngay jàng fatiha sopp ñu nga ñaan dañ ko sib jàng saar wa noonu bëgg na nga ñaan na nga ko moytu wat du xaaw ak ñaan fi rukkoo ci rukkoo ba boo dee rukkoo da ngay màggal rek yàlla ngay màggal yàlla dong waaye doo ñaan ci rukkoo bi yàlla may ma nangam boo ko defee ñu sib ko wat du xaaw ak ñaan bax da tashahudi ci gannaaw taay ji al awali ji jëkk taay ji jëkk mooy taay joo xam ne roccee sëlmal ndax julli bi la rawee mën naa am ñetti taay mbaay yent waaye daal jëpp taay joo xam ne roccee sëlmal rek xam ne su jeexee doo sëlmal rek sib nañ ñaan ca ngay dem ba ci ja nga nar a sëlmale nga wa duxaaw ak ñaan baxda salaamal imaam ci gannaaw salmal imaam gannaaw bu ilimaan salmalee yow nga jàll ñaanaat door a wax asalaamaaleykum sib nañ ko dañu bëgg rek bu salmalee nga salmal wa sujjóot ak sujjóot xala siyaa bi ci ay yére wal bus ci ak ay toppi wa waaye wal busuti moo ci cosaan ci baat bi wal busuuti ak ay toppi wa shibhihima ak lu niroog ñoom ñaar mimma ci lépp loo xam ne fii nekk na ci moom rafaahiyatun ak bànneexu waaw ah, na sib nañ ngay sujjoot ci sa yére mbaa toppi mbaa dara lu loo xam ne ngaa bëgg rek loo noppal teg nga ci teg sab ji rek ak say loxo moo la neex ndax dafa nooy dafa neex rek waaw ah, loolu daañ ko sib te bu fekkoon ne foofa dafa tàng jër wala mu sedd guyi tax nga sujjoot ci sa lafu mbubb mbaa ba ngay lal sab der mbaa sab sajaada nga sujjóot ca der ba mbaa sajaada ba ndax bañ tàngaayu mbaa sedd wa loolu moom duñ ko sib ba tey bu dee néeg boo xam ne mbaa jàkka yoo xam ne lépp dañ ko def ay topp itam ba tey duñ ko sibati sa yow bàyyi noonu du aajoo nga tibb suuf di andi waaye boo dee jullee ci foo xam ne am na suuf te yaay lal sa julliwaay nag dañoo bëgg bu dee sajaada bu dee leen nga lal ko lalin woo xam ne fa ngay dëpp sab jë ak fa ngay rëppeel say loxo suuf kese lay doon li fekk nga xam dafa tàng wala mu sedd nga xam ne boo dëppee sab jë foofu sedd bi wala tàngaayu gaañ la waaw su boobaa nag kon mën ngaa sujjóot ca loolee te du aay bi xilaafil xasiiri ci wuuteeg ak romb jaan fa innahu naka moom laa yukrahu déeful sib ak sujjóotu sujjóot alayha ci moom walakin waaye tarkuha ak bàyyee mit awla moo gën a yee romb jaan dañoo defee ne dafa ñagas ñu defee ne kon nga sujjóot ci ak bànneexu nekku ci moo tax mu ne moom siguñu ko waaye moom sujjóot ci jëmmi suuf si bu mënee am moo sujjóot ci romb jaan gi wa sujjóot moo tax mu ne wa sujjóotu sujjóot alal ard alal ard ci kaw suuf afdalu moo gën bañee sujjóot ci romb gi te sujjóot ci suuf si moom jonjoog jëmmi suuf si moo gën a tegtale bokk na ci lañu sib a sujjóotu sujjóot xalaa kawri xamaamati xalaa kawri ximaamatihi ci lemu kaalaam aw tarafi kummihi wala catul laf mbubam aw ridaahi wala làmbaayam maanaam sib nañu ba ngay sujjoot nga sujjoot ci sa lemlemu kaala wala sa lafu mbubu wala sa lafu sa lafu làmbaay loolu lépp rek li waxoon mooy bu fekkee ne foofa dafa tàng moom mbaa mu sedd bopp moo tax nga sujjoot ci la ca lemlemu kaala ga wala catul lafu mbubu ba mbaa làmbaay gi du wàññi dara waaye boo ko defee ngir bànneexu rek moom ñu sib ko wal xiraatu ak jàng fi rukkoo ci rukkoo da ngay wax wal xiraatu ak jàng alquran fi rukkoo ci rukkoo wa sujjoot ak sujjoot maanaam booy rukkoo nga sàbbaal waaye boo fa jàngee alquran rek alquran baax na loolu waaye sib nañ ko foofu bëgguñu ko fa jàng wa duxaaw ak ñaan bil xajamiyati ci laameñu làkk ci laameñu làkk kat lil di ñal aji àttan xalal xarabiyati ci waxiinu arab maanaam bu fekkee li nga bëgg ñaan yàlla mën nga koo wax ci arab kon dañu sib nga wax ko ci weneen langue bu bokkut arab su fekkee li nga bëgg ñaan yàlla mënu koo wax ci arab nag kon mën nga koo wax ci làmmiñ wa nga ko mën a waxee hmm, loolu nag mooy booy ñaan xam nga dañoo sopp lépp loo bëgg rek nga ñaan ko boo dee julli rawante na ca taayi ju mujj ji bala ngaa sëlmal wal iltifaatu ak geestu fi salaati ci biirub julli julli di geestu ci sa ndeyjoor mbaa ci sa càmmoñ loolu ëpp def sib nañ ko wa tashbiku asaabihi ak ràbbale ay baaraamam wa farqaatuha ak foq ay baaraamam di julli ràbbale say baaraam mbaa nga di ko foq foq say baaraam loolu sib ko wa wadduhu yadda yi ak teg loxoom xalaa xaasiratihi ci kaw sàllwetam maanaam teg say loxo ci sa sàllwet mooy nii ni ki ñu jàpp ni sàllwet loolu sib nañ nga di ko def wa iqhaauhu akum njoofeer loom njooferlu mooy coppooral maanaam nga julli coppooral ca na nga tooge da nga coppooral loolu sib nañ ko wa tax miidu xay na yi ak gëmmal ñaari bëtam wa tax miidu xay na yi ak gëmmal ñaari bëtam maanaam di julli di gëmm say bët te bañ a xool araam waralu ko bañ ngelaw li fatt la waralu ko da ngaa jëkk-jëkk gëmm rek loolu sib nañ ko bu dee bañ ngaa li fatt mbaa bañ a xool lu araam boobaa gëmm ga lu la waaye jékki-jékki gëmm rek te amul sabab loolu sib nañ ko wa wadhu qadamihi ak teg ndëggoom xal uxraa ci la ca des maanaam di julli say tànk jege lool ba ëpp mbaa nga jël benn tànk bee teg ko ci kaw bee sax maanaam jël ndëggu lii teg ko ci kaw lii def ko nii ndëggu lii teg ko ci kaw lii mbaa ñu ba ëpp mel ni kuñ jéng loolu ba tey taamu wuñ ko wa tafakkuruhu aku xalaatam bi amrin ci mbir dunyawi yin mi ko jóg àdduna di julli di xalaat ci mbiri àdduna loolu sib nañ ko te la nga xalaat ci mbiri àdduna kenn du la ko bindal tuyaaba kon boo dee julli nga xalaat màggaayu yàlla ak julli gi ngay julli bu la neexee xalaat ba ci mbiri àllaaxira waaye àdduna moom sib xalaat jëme ja waxam bi shay in ak yanu dara baa nga ne def dara bi kum mi ci la fut woon aw fa mi wala gémmiñam di julli def ci sa poos mbaa fas ci sa loxo mbubb loo xam ne xëy na sam xel dem ja ba tey loolu sib nañ ko bu dee sa gimiñ moom tamit loo xam day ruy mel na tàngal wala yooyu ak lekk lay soppi bu fekkee day loo xam ne daa fees sa bu mu laa tudd araf tam ba tey day yàq julli gi day aajowoo mu doon loo xam ne moom nekkul luy ruy te du la tee mën a tudd bàyyi na mu ware su boobaa lañ koy sib kese yam ci waaye bu fekkee mën laa doo mën a tudd bàyyi na mu ware su boobaa day yàq julli gi waxaba son ak foxe maanaam ak fo bi lixyati yi cab sikkimam maanaam di julli di fooye sab sikkim wala say wala jaaro bi nga takk ci sa baaraam ak yu demee noonu ak loo mën di fooye rek loolu sib nañ ko ci julli ndax xam nga sore naag sore naag ragal yàlla ak màggal yàlla mi ngi taxaw fi kanamam wal mashhur lu ñu siiwal nag fil basmalati ci bismillahi rahmaani rahim wa taxawudi ak ahoudu billahi alkarahatu moo di ak sib fil faridati ci julli farata fil faridati ci julli farata duuna naafilati ci lu dul naafila leen wax bi gën a siiw nag ci ñu topp ngirum Maalik mooy boo julli farata du bëgg ñoo nga wax ca bismillahi rahmaani rahim doo ko wax ca fatiha ja doo ko wax ca saarwa ndax ñoom dañoo jàpp ne bismillahi rahmaani rahim ji nekk ci njëlbeenu fatiha ni mu nekk ci bopp saar ci des rek ñoo yemoo nga xam ne kenn du ko limaale ci saar yooyee dañ koo tàmbalee saar rek ngir noonu nag lañ tàmbalee fatiha bismillah noonu lañ jàpp bismillah rahmaan ba nekk ci surat namli daal waaw booba lañ dog ne moom fa nekk ca foofa ci la jala waaye bukkute boobu dañuy jàpp nañ ko bind ci njëlbeenu saar rek